moom ki n'a xam nekk Cheikh euh, à la suite euh, la nga di euh, placé en garde à vue exactement ki n'a xam que moo di Cheikh Yérim Seck moom nee je n'ai diffamé personne j'ai dit des faits étayés nee na moom diffaméwul kenn et que li am la daal di wax exactement placé en garde à vue hier mardi division spéciale de cybersécurité mu qui di lors de l'audition ki n'a xam que moo le journaliste Cheikh Yérim Seck ñu koy daal di toppee diffamation et division de fausses informations euh, mom nak mu daal di euh, exactement tous ces faits manam weddi nako mom moom nee na kenn dafa daal di wax miri yi nu mu daal di euh, je je le répète je ne cherche rien d'autre que de faire mon métier en respectant la sacralité des faits nee deful dara lu dul daal di respecter li nga xam que moo métier am respecter exactement itam les faits après ku si nekk ak na koy daal di commenter suñ sukkandikoo si qui n'a ramené que moo di c'est que Seck dafa nekk si euh, benn posture journaliste de restitution des faits dans leur authenticité euh, Madame dafay daal di révéler exactement toutefois euh, maître Bamba Cissé mu nekk ñenn si ay avocats leader bu pasteur mu daal démentir des informations selon laquelle mu Japni son client une plainte qui n'a ramené que moo di c'est que Seck qui n'a ramené que Modi maître Bamba Cissé mi ngi que ni c'est le parquet qui s'est autosaisi allant dans ce sens.

ben leader foofu si daanu Pastef exactement alors nak moral le procureur mu daal autosaisir bëgg xam identité kooku di jay arme kan la est-ce que aussi am possibilité pour jay li nga xam nek modi arme concrètement pour commencer d'abord ok

ndax la convocation de Cheikh Yérim Sek ndax Ousmane Sonko mo porté plainte parce que ci mom la wax mu ne ma Ousmane Sonko n'a jamais porté plainte pour qui que ce soit même les plaintes yu ñu ko doon jiiñ fi ni ay ba jaxaté ay xawma la Ousmane Sonko sax talu len loolu la ma wax moné Ousmane Sonko sax day yéeg ci presse bi comme ñëpp ni ko diw wo nañu ko mais de près ni de loin n'est mêlé à ces affaires là waa ni la ma ko expliquer alors euh, suma ma ci Cheikh Yérim Seck il faut ngeen xam ni. Cheikh Yérim Seck yàgg naa wax lu mel nii. yéen a ngi fàttaliku ba muy wax ci Ousmane Sonko ba muy ne Ousmane Sonko dañ ko jox xaalis wala dañoo ger waa Touba benn société israélien qatarien qatarien autant pour moi moo ger waa Touba pour ñu voter pour Ousmane Sonko pour Pastef yéen a ngi fàttaliku ci loolu Cheikh Yérim Seck moomu ba muy tuumal Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mon, preuve ngi c'est le même Cheikh qui revient Bon, qui revient bon non non dama cadrer le débat bi. fàllu may wax bah, pour sénégalais comprendre ni que Cheikh est qu'un tout qui ko il il est coutumier des faits. Mm. c'est le journaliste. Mm le journaliste c'est le seul journaliste au Sénégal Cheikh Yérim Seck. lu mu def arrêté wala ku gë ku a am ci ay plante ci ay diffamation alors moom ak ma mbay Madiambal Diagne moom sax romb na Madiambal Diagne journaliste buy def liggéeyam nga politique ci journaliste yi nekk Sénégal yépp ci ay plante de diffamation mais war nga xoolaat sa bop euh, Cheikh lu def. war nga sa bop parce que il c'est-à-dire que xam nga xam journaliste. li ngeen di des journaliste. Hmm journaliste il y a ce qu'on appelle le un, code de la presse le code de la presse waxul ni Cheikh Yérim lu def mais il a bien précisé non non non ma ñëw ma ñëw il est dans une posture journaliste non non il a bien précisé. il est dans une posture journaliste de restitution des faits dans leur authenticité. c'est faux c'est faux c'est archi faux c'est archi faux ce qu'il a dit. Il n'est pas dans, le posture, dans, dans une posture de journaliste. Il ne fait pas son travail de journaliste. Le journaliste est protégé par ce qu'on appelle le code de la presse. boo demee ci l'article 12 du code de la presse C'est Yérim Seck lu muy def nii ko demal nga laaj xama xama man dama bëgg xama xama fallu lu code boobu xama l'éthique et la déontologie man maa ngi ñëw ci loolu xama xama éthique ak déontologie xama fallu maa ñëw ci loolu xama éthique ak déontologie dafa tënk journaliste même loo mënta wàcc liberté d'expression la liberté d'expression est encadrée par les normes est encadrée par les lois par les règlements liberté d'expression ne veut pas dire que yow da ngay wax ba wax loo xamante ne waroo ko wax kan Cheikh Yérim d'ailleurs kenn topp ko ci kenn toppewu ci Cheikh Yérim ci diffamation diffusion de fausses nouvelles ma wax la manipulation bu ñuy jël fu ne Cheikh Yérim sek diffamation lañ ko toppee dama né kenn toppawul diffamation nit mo lay top ci diffamation ni yow dag ma maa diffamé nit mo lay porter plainte fallu tay nga wax nit dara ci nit mu porter plainte la mu ne la fallu daf maa diffamé mais wax len ma kan mo top Cheikh Cheikh Yérim sek kan moo ko plainte les avocats de Ousmane Sonko même vous ont dit que Ousmane Sonko porté wul plainte contre Cheikh Cheikh Yérim Seck léegi lan ngeen di wax ci diffamation procureur auto saisir ci diffusion de fausse nouvelle sëñ bi foog ngeen foog foog ngeen xam ñi ñi fu ñuy waxé man maay ngi dëgg ci presse bi ñu naan Cheikh Yérim sek nee def diffamé wu d'accord diffamé wu kenn mais ken topé ko ci diffamation procureur moko auto autosaisiru gis nga xam nga division de fausse nouvelle su amé amna ko koo diffamé amna ko ay xibaar yu en fait il voulait le dire dans ce contexte. non non bu de euh, en fait. Euh, diffusion de fausse nouvelle amul. de fausse nouvelle autrement. xam nga même son plainte donc. Euh, Cheikh diffamé leader passé bi ni dafa arme ki Jérôme diffamation c'est un délit de presse. diffamation c'est un délit de presse est-ce que comprendre mm, mm, mm. diffamation nit ngay diffamer wala nga diffamer une société wala qui mais diffusion de fausses nouvelles c'est plus encore plus grave da ngay wax da nga wax ay xibaar yu wérul ni que lii ñu woo la pour ne la andi preuve ci li nga wax andi preuve ni que kii dafa jaay ki arme xana kay boy jaay arme nit dafay am décharge dafay am papier bu légal arme bo jaay day am papier bu légal ni ma lay jaayee arme yo fàllu ñu ne la man ma la jaay arme nga ne diw moko ko jaay arme d'accord légui andil andil preuve té lolu loolu koy wax mais wax len ma depuis audition Cheikh Yérim sek bu démb kan mo xam lan lañuy audition ci lan lañuy ñuy Cheikh Yérim Seck. d'après les informations exclusives yaa ngi wax d'après. d'après aussi euh, avocat yi génn wax. ci seen proche génn wax avant amna na am ko fekk oh, mais gars vous voyez. mais déjà xam nañ lu ñu koy toppee Arfan. il faut il faut arrêter xam nañ lu ñu koy toppee. d'accord il faut arrêter la manipulation. Mm-hmm. d'après les informations de. Cheikh Yérim Seck kenn toppeewu ko ci diffamation diffusion de fausses nouvelles xam nga yow li amna mm. les les les officiers de de police judiciaire mais mais mais mais buñ la woyé dañ lay né andi preuve yi li wax nga li ak li ak li attention té aussi ñooñu bu len jàpp ni ils sont pas dans les réseaux sociaux Ils ont yor téléphone comme tout le monde les officiers d'enquête par euh, judiciaire de de police judiciaire mais ils ont des téléphones comme vous j'ai moi. Ah, ils sont regardants dans les réseaux sociaux dañuy gis les points de presse là dañuy gis les lives que vous faites là hmm. parce que tey réseaux sociaux yi dañoo créer un monde virtuel. donc ñu nuyuwaat leen ñooñu. jeex vous avez créé un monde virtuel. un monde virtuel les réseaux sociaux là ku nekk di wax di tal live fam di def vidéo même ay xibar yo sax yo xamantene yow koy wax nga tal sa live di nan non li, amna li, amna li, amna. mais ñom dañuy dañuy xol ces réseaux sociaux là bu ñu yeme ci vidéo bo xamantene di wax na li. mais dañ lay wo ne la ah yow wax nga ci li ci vidéo ce vidéo baa ngi ni kay leeral ñu ci li c'est ce qui se passe actuellement dans ce pays mais lu xew rek Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw c'est tellement facile c'est très facile qui veut la facilité mooy maanaam nga taal sa live wax lu la ne ba pare buñ la wooyee nga ne noo xam naa Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko moo nekk di manipuler pour ñu ñu ñu jàpp ma Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw en sachant que il n'est pas le président de la République. Mm il n'est pas le président de la République moo tax ma ne la nañ ñi cette facilité c'est tellement facile nga wax lu dul dëgg ñu convoquer la nga ne non Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko moo bëgg ñu jàpp ma Ousmane Sonko mu ngi pratiquer pour la candidature bu bu bu Barthélemy Diaz mu mu takk suuf Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko lee Ousmane Sonko c'est tellement facile. Fallou c'est clair c'est très facile. Euh, dama ne buñ la wooyee nga yor preuve da ngay dem wuy ji. boo demee wuy ji yàlla xam na ni boo yoree preuve doo fa fanaan. alors c'est clair boo amee preuve doo fa fanaan yow da ngay génne sa preuve nga ne preuve yaa ngi nii. alors ñoom ñu jël preuve yi xool. mu méngoo ak dëgg ñu ne la ñibbil sa kër. alors mi ngi noonu exactement mbiru ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck donc nag mbir yi mi ngi si kanamu yoon ak wàllug yonal dem moom yëkkati na li nga xam ne moo di ay kàddu jàpp na ni aujourd'hui euh,

présente peut-être devant le procureur alors nous item, c'est le si de le